am jàmm yépp ci sëriñ si dañ leen a korom man maa ko wax ña am jàmm yépp te sëriñ si ñu ngi laal ci ay millions yi li nga xam ne mooy million yi Macky sàll yi luñ bëgg Macky sàll mu ngi leen koy defal ku ëmb sa sanqal xaw ma yore sa ker sa xaw ma nu koy olof di waxee loolu moo fa nekk moo tax duñ wax te soxlaatuñ ñu wax sëriñ si soxlaatuñ ñu wax parce que ñoom tamit ay doomu aadama rek lañ yàlla def gis nga xilaafa yii ñuy toog nii di leen tiitaroo naan xalifa nangam xalifa nangam yooyu yëpp dëgg la damayee gudd fan dama ciy toog du xam-xam du dara may yàlla la rek du xam-xam du dara kaay ma xala ci tey barke alquranul karim te sëriñ si soo demee koo ci laaj benn téere bu gën a ndaw muy lax dari awalu maa yujibu alal mukallaf mënoo la ko mënoo la koo tontu sax bëri na ci dégguñ arab jànguñ maag ñoom ñoo yem mais cër la boo xam ne suñuy maam yi suñuy bàyyi ñu ñëw bëgg a àggaleel loolu pour ñu ñu bañ a fàtte suñ culture moo tax ñuy taxawal xilaafa mais du baatin goo xam ne dañ koy dóore du loo xam ne xam-xam la do loo xam ne leneen la <laughs> mais cër la mais cër googu nag suñ demee ba jox leen ko te gisatuñ ko seen peuple gisatuñ ko dañ leen di bàyyi na ngeen xam ne léegi sëriñ jeex de moo tax ku ci gaaw dem liggéeyal sa bopp utal sa bopp loo moomal sa bopp billahi wallahi tallahi gaaw leen ngeen dem utal seen bopp ndax di ngeen toll foo xam ne di ngeen bëgg di gis kuy joxe addiya te dootoo leen ko gis te fekk liggéey ba sa trop tard dem ngeen ba nekk mag moo tax na ngeen préparé ci sa ndaw ngay dem liggéey taxawal sa bopp loolu moo gën nañ bàyyi caaxaan yi nañ bàyyi caaxaan yi caaxaan ji bëri na nañ ko bàyyi duma ma bëgg a guddal waaye maa ngi wax rek ne leen amatul déglu kenn ku ci nekk rek wax dëgg yàlla kon niñ leen koy waxee léegi-léegi nga dégg benn discours boo xam ne ñoom